asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen samay mbokki jullit benn gunóor mi ngi nii ñëw ba ci àll ba daanu fa amul ku ko xettali ndeke am na beneen mbokk gunóoram bu mu àndaloon moom it mu di ko wër sax fan la nekk muy wër ba mu yàgg mu séen ko ndekete moom dafa daanu amul ku ko xettali mu xalaat ni naa naaw dem ba xam danaa ko mën a dimbaleem déedéet mu naaw ba ca moom jël ay tànkam jàpp ko ci tànk ki daanu bëgg a yëkkati waaye saa bu yëkkatee rek mu daanuwaat ndax attanu ko mu ni naa daw ba xam danaa ci am pexe wala déet mu daal di dem ndekete ay mbokkam ca la dem mu dajale leen mel ne ku leen di xamal ni sunu mbokk meekat daanu na te ñun la soxla moom mu daal di naaw jiitu ay mbokkam ay mbokkam topp ca ba xam danañ ko mën a xettali am déet ba nu ñëwee ba agsi ci moom ñu jëfandikoo am pexe pexe ma mooy ñoom ñépp ñu wàccandoo ci benn xob ba xob wa féete suuf ba jege seen mbokk ma seen mbokk ma daadu cay jàpp ñoom ñu naawandoo xob wa naaw yëkkati ko noonu lañu def ba xettali seen mbokk moomu kon yéen samay mbokki jullit yu ni mel dañ koy faral di def ngir di ci mën a jaarale sunu daawa rekk waaye nag dimbalante day mi ngi gën a jekk ci ñun ñi nga xam ne ñooy ay doomu aadama moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day daan na ñaax saxaaba yi lu bari lool ngir ñuy dimbalante saa boo xamee ni jafe-jafe am na loolu sax moo sabab moom yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ñu benn xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abu hurayra yal na ko yàlla gërëm moom abu hurayra mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na képp koo xam ni wuññil nga sa mbokkum jullit benn njàqare ci njàqare àdduna yii nee na yàlla dana la wuññil njàqare ca njàqare ëllëg yowmal qiyaamati moom yonent bi dellu waxaat ni képp ku yombalal sa mbokkum jullit lenn lu jafe yàlla dana la yombalal say mbir ci àdduna yombalal la say mbir ëllëg yowmal qiyaam moom yonent bi dal waxaat ni képp ku suturaal sa mbokkum jullit yàlla dina la suturaal ci àdduna suturaal la ëllëg yowmal qiyaam moom yonent bi dal waxaat ni yàlla day day dimbale jaam bi feek jaam bi mi ngi dimbale mbokkum jullitam kon yéen samay mbokk faw ñuy dimbalante ndax kenn ku ci nekk ci ñun ëllëg yowmal qiyaam boo dajeek sa boroom di nga soxla ndimbalu yàlla ak kum mën a doon ndimbal googee nag ñu mën a jëlee ci sunu boroom ñu ngi koy amee fii ci sunuy mbokki jullit yi nga xam ni ñoo leen tane loolu sax moo tax yonent bi delloo waxaat ni na ngeen yërëm ñi ngeen tane te ñu nekk fii ci kaw suuf ndax ki leen tane te nekk ca kaw asamaan di leen yërëm kon mbokkum jullit saa boo amee walla nga xam na nga dimbale sa mbokkum jullit ma amul walla ma xamul may ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu defal ñu jàmmi àddunaak jàmmi yowmal qiyaam defal ñu tawfiiq te defal ko mboolem jullit assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu